wasalaatu wasalaam ala mawlana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di ziare bu baax ñëwaat nañ ak yéen ci waajal la 18 mars comme ni ñu koy baaxoo di def année bu jot daaw ci heure bii defaloon nañ leen ko yàlla dimbale ñu bañ fekkee fekkewaat ko ren daayiratul mutahabbina fillah bu ci benn ànd ceeg association jokk ak yéen pour ñu waajal li nga xam ne nii mooy bis bu màgg boobu dana di suñu marché fële ci Thioubène mooy waajaayu conférence de Thioubène bi ñuy def set année ñi ci ànd ak seen bii di Thioub mu bàyyi waaye di ci ànd ak président bi nga xam ne nii moo jiite association jokk mbokk am na seen groupe bi nga xam ne nii ñoom ñooy ànd ak ñun di sikkar seen njiit di sëriñ Morante ci bokk ko xam xam ko ci mo mu ànd sek Cheikh Papa Thioub mu ànd sek euh, Papa chubu gei ak Papa Tam ak Baye Mbaye Mbaw ak te chubu ak Sëñ Jamdi an si rabi bi Sëñ Mohamed Thioub ñu bëgg a def ak yéen benn jotaay bu am solo bo xamni ni spécial waajal conférence ci benn ñu ngi sant yàlla bu baax te julli si yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam di woote waat te mbokki jullit ñi fu ñu mën a nekk rawatina dina mutahabbina fillah ak station jokk mbokk fi ñu mën a nekk ci àddina bi di wax ne ñun ñëpp nañ ànd rek ñu waajal bis bu màgg boobu ndax nation bu nekk am nañ seen bis waaye ci leen tamit am na seen bis mooy seen bisu conférence bi nga xam ne moom lañu def seet année saay bu ñëwee rek fu doomu ci benn nekk rek sa xel la ci yem ndax bisab mbégte la waaye bisab rencontre la te xam ne ni ci yonent moom sallallahu alayhi wa wax ci ay mbokk yu dajee la ci nekk ci ay ngëneel bis bi nag nekkul conférence rek ak tasaaroo wante dafa am ay spécial yu ci am yoo xam ne nii dëgg-dëgg jar nañu xam ko pour ñu gën koo mën a waajal bu baax maanan wa maanawiyan wa maddiyan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 la la la la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 برهما قصوهم من كداياك يا ذو الخلق برهما إله الخلق أتاك إمام الكون برهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله قروس الحق والتحقيق والأفعال برهما قروس الحق والتحقيق الإمام برهما لم يتلقي سنديني لأهل قصر برهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله رميت الخسر ديني لأهل الخسر برهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقصت اللب من لبي لأهل اللب برهما لا إله الله لا إله إلا الله أقصد لب من لبي لأهل لب برامة أقصد لب من لبي لأهل لب برامة أميت خزر ديني لأهل خزر برامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدانا له بالقوس سراج برامة أدانا بالخلص سراتي يا برحمة مع الأسأل وآدي كثابت باه برهما لا يا إلا الله لا إلا الله تمام النسم في كوني وحمد الله برهما لا يا إلا الله لا يا إلا الله تمام النسم في كوني وحمد الله برحمة لا يا إلا الله لا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 إله buñ déggee kàddu yooyu rek suñu xel dana dem ci suñuy baay ya jiitu nga xam ne loolu rek lañ jeexal seen dund kon ñu dugg ci jotaay bi rek di dajal dalal suñu as président président ñu ngi lay ñu ngi santaat yàlla bu baax tey julliwaat ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg a seq ak waxtaan ak président ngir lu jëm si waajtaayu conférence de Thiouben le 18 mars. ñu naan salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar bu baax di wax lan moo waral jotaay bi ak lan moo. آه، الحمد لله وشكر لله وما بكم من نعمة فمن الله صلوات الله وسلامه على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنساره إلى الله وخاصة الصديق الأكبر والفاروق والسنورين وباب مدينة العلم وعلى ورضي الله عن شيخنا شيخ المسائق عين الولاية مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني الذي قال في حقه مولانا الشيخ إبراهيم يس أرى الله ساق الوجود في هذا الزمان مساق العلاب ولا ينجو منه أحد إلى من رزقه الله محبة الشيخ القدم التجاني وذلك لا بد أن يكون عارفا بالله وينك بدمان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أيها وارث سرهما صاحب الفيضة مولانا شيخ الإسلام على إبراهيم نيس وأنيوبة السمان ومرب العارفين ومدرسة العلم والدين والأخلاق العظيمة وهبيب الجماهير داخل الوطن السنغالي وعلى الابتداء الفعل الإسلامي نيجي سنتي يالا بو باخ دي جولي سي محمد صلى الله عليه وسلم دي گرم سن مولانا شيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه واي دي گرم سن مولانا شيخ الاسلام على ابراهيم نيس waaye nag di nuyu mboolem jullit ñëpp di gisal ci nuyu boobu ki nga xam ne mooy suñu njiit suñu sang suñu xalifa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh al Islam al Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di jaaree ci moom di nuyu mboolem xadara bi nga xam ne mooy xadara Ibrahima yëpp di nuyu ki nga xamante ni mooy imaamul akbar Seydi Ali Cissé di ñaan yàlla dolli ko wér dolli ko ay tëbb waaye di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin Baba. di jaare si ñoom di nuyu rek mboolem waa Médina yépp waaye di xuus dem ba Cubéen bi nga xam ne mooy suñu dëkk di nuyu ki nga xamante ni mooy imam ba di Seydi al oustaz Mouhamed Bassir Thioub di ko ñaanal yàlla wér yàlla dolli ko tawfiq di nuyu borom dëkk ba Baye Mbaye Faye Thioub waaye di nuyu mboolem ak ima yi nga xam ne ñoo fa nekk rek ak waa dëkk ba yëpp góor ak mag jigéenam yëpp ñu leen nuyu di leen ziar di nuyu jotaay bi nga xam ne fi lañ teewoon ni tey ak saakiri yi nga xam ne ñoo doon léegi di tudd yàlla nga xam ne sikar nañ fi sikar yu am solo suñu jiital Mor Anta Thioub wa man maahu min azakirina ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu waaye di nuyu Mouhamed mi nga xam ne tey moo ñëw ñun pour defal ñun émission bi nga xam ne doomu ci benn mu nekk ndaw loo xam ne dëgg-dëgg ku am yitte la ñu ngi liggéey comme ñëpp waaye terewul tamit ñu ngi góorgóorlu ci li nga xamante ni dëgg-dëgg yitte jamono la mooy fexe ba lii mu def nii doomu ci benn mu ñëw représenté si mbooleem doomu jigéen ngi koy ñaan yàlla sitam bi nga xam ne mi ngi ko tuddee Baye Niass TV ala kulli xaal yàlla yëkkati ko hmm. yàlla kaweel ko hmm. yàlla yóbbu ko fu kawe njortoom hmm. di nuyu Abdoulaye bi nga xam ne tey moom tamit mooy war a déroulé émission bi mu wax ne li xew rek mooy ne ci moo woote dañoo dëgmal benn programme boo xam ne ñëpp xam nañ ko ñu yàgg koo def muy Cubéen muy dëkk boo xam ne ala kulli haal dëkk la ci dëkki lislaam yi mu nekk dëkk boo xam ne dëkku alquran dëkk boobu nag ñoom ñoo woote tey li ñu woote nag mooy conférence bi nga xam ne ñi koy teewee ñun ñëpp xam nañ ko muy njabootu Mawlana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu teel ñu baax yooyu ñoo xam ne ñoo ko seen teew. kon tey loolu mooy li nga xamante ni moo tax ñu defar émission bi pour rek. laajante biir ak jaam yàlla yi. pour woo mboolem aalam bi yëpp rek. ñu mm, xarmal. ñu dem ci benn te xam ne bis boobu mooy bis bi nga xam ne dëgg-dëgg euh, mooy suñu bis bi nga xam ne duñ ko wéccee ak leneen. macha allah barakallah fii ko la xeyran bon ñu ngi lay bu baax gannaaw boo duggee ci émission bi bon le 18 mars la fële ca Thioubène moo waral ñuy def émission bu am solo bi nga xam ne cette année rek baaxoon nañ di dem si média yi di ko def ren nag yàlla baaxee ñu benn doomu Thioubène boo xam ne ni dëgg-dëgg mi ngi yëngatu ci lu nu mel mu góorgóorlu ba organiser. li, bon ñu ngi koy ñaan yalla yalla si yalla def tawfiq bu baax a baax bon suñu az conférence de ben ñu ngi ci csm édition ban jangat lañuy am si digënté première édition bi ba yegg ci csm édition bi ñu nekk ni waaw di sant yàlla rek ci siyaabaat ak masidaat yi nga xam ne yàlla mi ngi koy jox mm-hmm. euh, amul sikk ne association bi nga xam ne mooy association jox Mbokk mm-hmm. ànd takku liggéey ci biir jëm kanam nga xam ne ñi ngi ko sosoon mois de mai 2006 bi ñu koy sos booba conférence bi sax mën nañoo wax ne daanaka nekk doon lu am solo ndaxte daana xew ba jàll sax duñ koy yëg ñu sosee asos bi te li taxoon ñu sos ko mooy lan ànd takku liggéey ci benn jëm kanam bi ñu sosee asos bi ñaari at ñetti at ñun ñëpp ñu sentir ne suñu dëkk bee de Cubéen ñu ngi def conférence te li ñu tax a jug rek mooy loo xam ne dafay avancé loo Cubéen mm-hmm. te dara gënul fort mm-hmm. ñu ne doomu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom mooy jóge ko mbir na bàyyi mm-hmm. di ñëw Cubéen di def conférence ñu ne kon loolu suñu mbir la ñun ñoo ko war a taxawee looloo taxoon nag asos bi ñu fas yéene bis boobu bu jotee li ci war yëpp asos bi taxawu ko def ko mooy lu jëm ci baas beeg lu jëm ci bernde yeeg lu jëm ci taaral bi beeg ci ci lépp depuis 2006 lay euh, mois de mai 2006 lañ son asos bi. Mhm. waaye nag teg nañ si ñaari at ñetti at ñu ñu door a commencé nag. Mhm. asos bi commencé nag jël mbir mi téye ko à main boobu ba mhm. euh, tey ñu ngi ci 16e édition. nga gis ne am na mbir yu fi jaar. yoo xamante yëpp day wane ne mbir mi. am na euh, dëgg-dëgg am na njëriñ. te am na lu mu jur lu bari loo xam ne ñun ñëpp. bay na xaas yi wa daani ñun ñëpp ku jege ak ku sori yëpp xam na ne dëgg-dëgg asos bi. mi ngi am ay humiliation yoo xamante ni mi ngi koy def ci dëkk ba bokk na bi si njëkk rek mooy daaw xew-xew bi nga xamante ni ba léegi àdduna bi ñu koy waxtaanee mooy jumaa ju mag jooju nga xam ne moom lañ doon daloo nga xamante ni benn la ci tund nga xam ne ba léegi ñëpp a ngi koy waxtaanee mu nekk jumaa joo xam ne def nañ si lu mat quatre vingt million ci xayma rek mën na sax cent millions loolu yëpp li ko waral mooy ay ndaw yu takkoo ndaw yooyu nag أين دولة يقمني مولانا شيخ إبراهيم يس مولانا دسيني هون وهاي الله سي باخام مولانا ينكي ول ام جوبم يو خمني دغ دغ افانيو بيب ريو رك مون سي لوخال ندولي كوم نيكو مولانا شيخ إبراهيم يس واخه بو كو ديفينا بين خامي لول نا سي لن جوب تاخاو جوبانتا لوخو نيك بن مو ميتي لول نا كومانس ما مو نيكون لوخو لو ميتي لا ساك موا ني داجي فعاذره فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الصراع ليقف بهم الكفار نون لاي كوماسي داي كوماسي تي لو توتي دي ماك ني ديبار جوما جوج nga xamne euh ومن اعظم شعائر الاسلاميه بيوت اسن الله ان ترفع بوكو نجي برام ييغا خامتيني دا فاي ماندار غال ليغا خامتيني موي دين يالا يي يي سي غنا ماك موي نيغ يالا لول موي ليغا خامني موم لا نديك تباخ فوف نون تباخ نينا انا تعظيم شعائر الله huwa aynu taqwa màggal mandargaay barab yooyu nga xam ne dafay mandargaal dina yàlla loolu mooy dëgg-dëgg ragal yàlla mu nekk loo xam ne boo ko ñëwee rek ñu bëri dañ naan sax cubeen seen jumaa ji du ñoom ñoo ko tabax waaye dañ leen a financé waaye fekk yàlla xam ne ne eh, dëgg-dëgg ndimbalu yàlla rek moo ñu dimbale bañ man ko tabax waaye yemuñ ci loolu projet ya fa nekk ci dëkk ba gis ngeen ko poste de santé baa ngi noonu nga xam ne état la waroon loolu yëpp li ñu ko may mooy assos bi nga xamante ni dañ doon dajee ngir yàlla di génne suñu dërëm di ko dundale ngir yàlla bëggante ngir yàlla di dajee ngir yàlla ba yàlla defal ñu tawfeex yooyu yëpp beneen bi ci des gis ngeen ko fondement kër Serigne Baye noonu si yii nekk yoo xam ne moom a tudd waaye am na yeneen yu nekk si biir yoo xamante ni dëgg-dëgg kenn mënu koo wax yëpp nga xamante ni association mi ngi koy def kon loolu bu ñu waxee ne ñi ngi départoon tey ñi ngi ci sixième édition dëgg am na ay siyaaraat ay masidaat yu bëri yoo xamante ni xalaa ku laal képp ku nekk teg na si bërëb mooy li waa ji waxoon bi ñu tagg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass دفعمني وكل من يرى بالعيني ويمسي على قدمين ويسمه بالأسنين لا يماري في إنجازات مولانا الشيخ إسلام عليه الصلاة من كيف كو خمنا يعني أم ياري بدي جيس أم ياري نوكو دو ديك أم ياري تانك دي دوك لو سيك ساكو موكو نيل مولانا الشيخ رامي نيس دك دك أمنا أدمينا كي لنغا خمنتني موم لا موكو تخلو نيوم ويفايل بيغا خمنتني مولانا الشيخ تيجان دزنيو تتكو تي لغو képp ku am ñaari bët di gis am ñaari tànk di dox am ñaari nopp di dégg dëgg-dëgg laa yu maari fi injaasaati Mawlana Cheikh euh, di dégg ñaari bët di gis am ñaari tànk di dox doo werante mukk ne dëgg-dëgg asus bi wala daayat mu taxabina fi laay bu ci bi nga xam ne dañoo jàppante bëggante ngir yàlla di dimbalante ngir yàlla dëgg-dëgg mi ngi dox dox boo xam bu gaaw la loolu nag bu amee olof Njaay dafa wax mu ne ku yuutu jot rek ah fi nga dëgg moo dëgër ku yóotu jot da ngaa dëgg fu dëgër waaye ku ñëwee tamit dañu laa déey li ma bëgg a wax foofu mooy dañoo ànd ak koo xam ne muy Mawlaaya Cheikh Abdoul Malik ibnu Cheikh al Islam ala Ibrahima Niass nga xam ne Baye Niass nee noon ara annani Abdoul Malik xaqiqatan wala assa lil axyaari fi lxayl wala fi lxalbi wala shayna Baye Niass nee na gis ma man maay Abdoul Malik xaqiqatan Abdoul Malik ñun amul sikk sàkk ne mooy Mawlaana Cheikh Islam tey si jamono bi mooy suñu représentant ñun Mawlana Cheikh al Islam ndax moom la yàlla booleeg ba tax tey liñ am ni yëpp ñu mën koo am moo tax tey liggéey bi gaaw liñ mën a fuñ mën a yegg yëpp ñu mën faa yegg loolu euh, soxbatu barakatu soxba la maanaam barkeeb àndaale te loolu alquran jàngale na ko ci diggante yonent yàlla Moussa ak Haaruna bi ñu àndee ñi nga xam ne ñoo bani Israil ñu ko ay jaam yàlla yuy yées waaye ànd gi ñu àndoon ak Moussa ak Haaruna dëgg-dëgg moo tax ñoom dajee nañu ay xéwal yu bëree bëree dem nañ sax ne yàlla naaju tàng yi sax daf ñuy lor Moussa ne yàlla wàcce leen aw niir fuñ jëm sax niir bi moo leen di niir ñu ne dañoo xiif yàlla wàcc leen man ak salwa yooyu yëpp li leen ko mayoon mooy bar barkat euh, àndaale gi ñu àndoon ki nga xamante ni mooy Moussa Harouna kon àndaale bu baax boobu muy Mawlana Cheikh Abdoul Malick nga xam ne buñ ne cumbee ne alquran waaye gis ngeen Cheikh Abdoul Malick taxawaayam ci Medina Baye xam ngeen ne euh, jaayisa yi nga xamante ni na Baye ñu ngi koy defal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mooy cadeau yi ñu def par weeru koor mm. di ko jëlal jànkat alquran yi xam nga ne kii ko jiite mooy Mawlana Cheikh Abdou Malik gis nga ne ndaw yi nga xam ne tey moo gañe woon cadeau bi nga xam ne waa ji dëkkoon na Baye noon hmm? ñëw fii Dakar gañe affaire bi biñ ko waree jox kadoom war koo sargal fii ci Dakar xalifa bi kan la yemaloon muy Mawlaaya Cheikh Abdoul Malick kon boole gi ñu yàlla boole moom loolu du karamati ila liqaayka xaasimi shawqi wa hubbi fiika laa yasfi siwa xululi wa irtihaali fii naruumu an yasxabana mada dawaam bi xibsinaa loo walaw xaalal mana bàyyi ne xutnii bihi xatnii wa xat kabaani kitaabuka shaafi li daa'il ahsaani ci biir ngóob nga xam ne bu ko waxee rek ne alquran yàlla boo leen ñëw jëmmi alquran muy Mawlana Cheikh Abdou Malick kon ma ne loolu du asxaar kon kooku lañ àndal moo tax dëgg-dëgg moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla dooli ko ay tëbb dooli ko wér-gu-yaram ñu ànd ak moom ba ilaa macha allah kon loolu liggéey bi yëpp loolu la asus jokk mbokk la ànd ko daay rek mu tax bi na fi laay mhm. asus bi nag am na ay bànqaas yu bëri am na ay ndaw yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi seen bopp di liggéey xalaa mhm. kulli haal ñoom lañ fi représenté ñoom ñëpp di waxe ci seen kàddu mhm. kon loolu mooy li nga xam ne jaar na fi ci diggante biñ sosee mbir mi ak léegi am na yu fi jaar yu bëree bëri bëri yoo xam ne yëpp kenn mënu koo wax waaye daal ñi nga xam ne képp ku am ñaari bët di gis am ñaari nopp di dégg am ñaari tànk di dox doo nekk doo mbir mi mi ngi avancé te mi ngi dox te am na njëriñ. incha defe naa ku am nopp di dégg rek. wala nga am bët di gis. wala nga am tànk di dox. li wax moom danga ci gis firnde bu leer nañ bon ñu ngi yàlla bu baax ñu ngi rek ci laaj yi ak ci tontu yi ñu ngi ci suñu émission bi nga xam ne nii mooy spécial waajal le 18 mars benn destination la muy Cubéen Cubéen nag bu ñu ko waxee mi ngi ci région de Kaolack di euh, commune de Guent Kaay ñëpp nañ ko waajal mooy ku sori ak ku jege waaye ak gan ak dëkk rawatina képp koo xam ne ni bokk na ci daayiratu mutahabbina fillah ak association Jokk Mbokk Sinaas ci benn de dama fay dégg loo xam ne dama koy dégg ci dëkk yu bari parce que dëkk yu bari bu ñu leen tuddee rek dañuy wax daayira nangam waaye bu ñu waxee ci dañuy wax daayiratu mutahabbina wax association Jokk Mbokk loolu daal laa nga leeral ko mbokk yi xam naka lañ mën a boolantee ñaar yooyu daal ban am nekk benn. waaw di santaat yàlla beneen yoon. Mhm. di wax ne Cubéen moom yàlla dafa dogal nekk dëkk boo xam ne. Mhm. dëkk taalibe la ma sa doon. dëkku taalibe la ma di ko dalee suñu maam. Mhm. suñu maam yi. ñoom ñëpp dañoo mos a nekk taalibe njëkk dara di xaw. loolu nag moo waral daayira moom mosu faa jug. ñu nekk ñoo xamante ni. dëgg-dëgg dañ leen a ràññee tamit ci pays bi nga xam ne mooy pays Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass. ma ne maam yi ñoom ñoo àndoon ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba ñu ràññee ba tey. kon daayira bi moom ku ne xam ne ne yàgg na fa. Euh, programme yi tamit yàgg na am programme diine mu nekk dëkk alquran. léegi nag bi yàlla dogalee jamono am. nga xam ne ndaw yi dañuy génn dëkk yi léegi boo demee doo fekk li tax ñu sos asos jox ma ko li tax ñu sos ko bi may wax li tax ñu sos asos jox ma ko mooy dañoo ñëw fii ñun ñëpp ñu gis ne ñun ñëpp ñu ngi ci àll bi ñu ngi Dakar waaye ñu ngi tasaaroo lool euh, bëri nañ lool waaye tasaaroo nañ lool nag sabab boobu nag <clears throat> ci baax ak yàlla yënkal yënkewal ñu am njubam moo tax bi ñu ñëwee Dakar yàlla ñeen ñenn ci doomu cubeen yi ñu yëpp loolu ñu dem ba yëg ne doomu cubeen yi kat bëri nañ fii ci Dakar lool waaye dañoo tasaaroo lool loolu nag moo waraloon ñu woote nag mois de mai 2006 ñu woote nag doomu ci biir yëpp dajee ñu waxtaan ne ñun kat war nañoo taxawal benn association jokk mbokk amoon na yeneen tur sax yu ñu ko jëkkoon a tuddee bu ñu ko taxawalee bu ko defee chaque fin de mois ñëpp kenn ku nekk ngay am loo joxe ñu koy dajale ngir lan ngir suñu dëkk ndax avenir bépp réew rek moom ci loxol ndaw ñi loolu nag moo waral association Jokal ak daayira mu moom ñun ñëpp ci lañ bokkoon avant ñuy ñëw Dakar fekk ci benn amoon na daayira ñuy def daayira di si kat ba pare am suñu sëriñ waaye nag li waral asu jokk mbokk mooy bi ñëwee Dakar gis ne tasaaroo nañ lool moo war nag ñu taxawal asu jokk mbokk yàlla dafa ñu si tawfiix nag asos bi nag moom tamit ñu ay ndaw yoo xam ne yu bennoo lañ yu bëggante lañ nag ñu ne nag suñu dëkk bee nag kenn duñu ko defaral ñun ñëw ko defaral suñu bopp moo waral ñu taxawal asos jokk mbokk bi bu subbeen xewalee asos bi yëpp jug taxaw takkaayu lépp lu war ci bis ba ak lu man a doon rek ñu def ko nu mu waree ak nu mu gën a rafetee ak nu mu gën a baaxee. Mhm. kon loolu moo indi daayira Mutahabina Fillahi mhm. ak association Jokk Mbokk. macha allah barakallahu fiika ñu la déggee daal. Mhm. moo di ne diine mënut a dem. sans àddina. maanaam diine ji nga xam ne nii moom lañuy ñuy suñu borom pour suñu alaaxira buñ ñëw fii ci àddina mënuñ koo jëf. léegi station bi. moo ñuy defaral suñu jamono. waaye daayira bi moo ñuy defaral suñu diine te moo ñuy defaral suñu àllaaxira loolu ñaari yooyu nag ñu ne kenn mënta dem bàyyi sa morom ñu ne bon daayiratul mutahabbina ak association jokk mbokk ñoom ñëpp association bi mboolem kuy doomu ci benn mun nga cee bokk ak foo man a naanee waaye daayira bi nag dafa am ñu muy tënk bon loolu ak xarañte la goo xam ne nii dëgg dëgg doomu ci benn yi def nañ ko ndax dëkk yu bëri problème yi am moo di ne bëri na dëkk yooyu dégg amuñ benn naanuwaay léegi bu ñu jëlee benn daayira tuddee ko kenn rek amaan na dana am ñu bett waaye ci ba mu jëlee association jokk mbokk jël lépp dëkk ba jox ko ko rek bon dëgg-dëgg loolu am na xarañte bu wóor bu ci nekk ñu ngi leen di ziar waat yoon ñu ngi ci spécial waajal le 18 mars fële ca Cubé ñu ci ànd ci caméra bi Mouhamed Thiobo Mouhamed Thiobo ku bëgg a xam siitam mooy TMBN TV Thiobo mu bàyyi ñes Bagnès TV yal na ko yàlla barkeel tey ko ci kaw ba mu nekk télévision bu mala a ci barkeel alquran si ñaar ñu ngi lay ziar bu baax a baax xam naa émission bi dañoo may ay minutes te liñ ci war a waxtaanee point boo xalaat rek da koy xeet te lépp xajut si cin léegi le 18 mars lan moo war a xew fële ci ci biir kon le 18 mars boobu nga xam ne Eh, fa lañ war a dem dafa war a xew rek mooy conférence boo xam ne dëgg-dëgg ki koy taxawee ñun ñëpp xam nañ ko muy suñu sëriñ Mawlana Cheikh Abdou Malik nga xam ne bu jugee rek waa Medina yëpp jug gis ngeen daaw la fa xewoon ñu jógeekoon Medina délégation bayekoon na dëgg-dëgg kenn mënu leen a daaw koo xelaat rek ala kulli haal ñëw na ci loolu nag kon moom la ñu dëgmal mu nekk loo xam ne ñu ngi ci invité àdduna bi yëpp. ku ne képp koo xam ne rek ala kulli yaa ngi xeñtu yàlla bëgg yàlla ñu ngi lay xaar ci bis boobu ndax boo fa ñëwee alaakulli nga jot sa càkkutéef te di nga am doolal ci yàlla bu baax euh, bis bi nag ni mu demee rek mooy ginnaaw bu ñu xëyee jàng alxuraan ba pare euh, bu añ midi jotee euh, avant midi sax am na majlis jotaay yoo xam ne war na fa am mooy àllañ na as-saqaafiya nga xamante ni mooy commission culturelle bi nga xam ne ay doomu cubéen lañ nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo di bind ay téere. di bind taariku Cubeen di fàttaliku maamu Cubeen ah, chaque année tamit ñu jël borom xam-xam yi nga xamante ni ay doomu Cubeen lañ nekk tasaaroo fii ci Ndakaaru ak ci àdduna bi yëpp jox leen ay thème nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee foofu ci suba si même bu ko xajut tamit ci suba si ala kulli xaal ci guddi gi sax jotaay yooyu yëpp mën na continuer pour dundalaat dëkk boobu noonu pour fàttaliku maamu Cubeen Euh, ruux yi fa nga xamante ni ñoo fa nekkoon yëpp ñu dundalaa leen ci yàlla am na ay thèmes yoo xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee foofu nga xam ne tànn nañu ay borom xam-xam yoo xam ne mhm. alaa kulli ñoo ko war a waxtaanee mhm. thèmes yooyu nag <clears throat> bokk na ci li ñu tuddee al amn wal istiqraa mhm. mooy sécurité ak dal loolu nag ku ne xam ne ne jamono bi laaj na ko beneen bi bokk na ci li ci thèmes yi ñu war a waxtaanee mooy ifsa salaam mooy fexe ba jàmmu tasaaroo waaye gis nee na képp koy jullit boo xëyee da nga war a fexe lislaam yokk ndax lislaam bu yokkoo rek jàmm jàmm am ci àdduna bi lislaam boobu nag la nit ñi xamul mooy lan waaye képp ku teew ci bis boobu ëllëg incha allah li nga xam dëgg-dëgg lan mooy lislaam beneen bi mooy bokk na ci ijaabiyaat yi eh, wa salbiyaat internet maanaam positif ak négatif yi nga xamante ni moo nekk ci internet internet am na njëriñ waaye am na ay ay lor yoo xamante ni tamit moo ci nekk ndax internet dafa mel ni mbedd rek mbedd la yow nag mbedd moom boo fi jaaree yaay xool yu baax yi nga jël ko yu bon yi nga moytu ko rek loolu nag fas nañu yéene waxtaane ko foofu noonu ci bis boobu ci ay borom xam-xam yoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci loolu beneen bi ci topp mooy al wasila as saxiha ila xaayati saxiha mooy wasila bi nga xamante ni moo wér nga xam ne dafa yóbbu jaam bi ci dayo bi nga xamante ni moo gën a wér yooyu mooy thèmes yi nga xamante ni ala kulli xaal borom xam-xam yi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ay gëstukati xam-xam yi nga xam ne seen lépp xam-xam la ala kulli xaal ñoom lañ tànn ci bis boobu képp ku fa ñëw kon xam nga ne lii rek ala kulli xaal jar na nit bàyyi ko fu ne ci xaalam bi pour ñëw pour teewee jotaay boobu waaye ñu fas yéene ànd ak tamit ci ngoon gi ginnaaw bu ñu añee ba pare euh, délégation moom ñooy bàyyi ko mbir na nga xam ne conférencier bu mag boobu noonu conférencier bu mag boobu nga xam ne dëgg-dëgg yàlla moo ko tàggat mhm. ci mu mën a wax ak jaam yàlla yi muy Seydi Mouhamina Niass ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax di ko nuyu mhm. nga xam ne ku ne xam ne ci moom ak fasaa mhm. ak mën a balaa mën a jotal xam-xam waaye ak man a jegeel loo xamante ni lu sori la ci xam-xam mu nekk ndaw loo xam ne dëgg-dëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo ko préparé woon démb tey door a ñëw nga xam ne faydu bi yëpp nangul nañ ko ne moom conférence amul si ku mel ni moom mm-hmm. kon kooku moo ki nga xam ne moo war a waxtaane bis boobu mm-hmm. ala kulli haal kon loolu mm-hmm. bokk na ci li nga dafa war a xew bis boobu waaye am na yeneen ak yeneen tamit yu war a xew incha allah képp ku ñëw ca rek incha allah di nga fekkee loolu waaye loolu daal mooy li nga xam ne mooy programme bis bi bis euh, ci woo ñëpp di ci invité jaamu yàlla yëpp incha allah macha allah barakallahu fiika wa jazakallahu xeyran ñu ngi leen di ziare waat rek di ne ñu ngi si le 18 mars 18 mars moom la ñuy waajal ànd seeg TMBN TV mu Moubaye ñas di ànd ak ñun ci espécial waajal conférence de Thioubène bon ñu ngi jaajëfal bu baax majlisu saqaafa wala comité saqaafa bi nga xam ne nii moo ànd ak daayiratu mutahabbin ak association jokk mbokk di si jaajëfal bu baax ku mel ni Cheikhu Tabaani nga xam ne mawdon yu bëri cette année rek moo koy génne hmm. waaye moo ñuy tànnal doomi Thioubène yi nga xam ne ni ñoo nekk ci daara ji di jàng tamit yow xam-xam lool hmm. ñii nekk ci benn ñii nekk ci biti hmm. waaye di ziar bu baax al oustaz Ababacar al oustaz Mouhamed ibn Mouhamed al Bachir hmm. al oustaz Seydina Omar Thioub oustaz Ousmane Thioub Kër Fall ak al oustaz Seydil Amin Guèye ak mboolem ñi nga xam ne nii ñi ngi ànd ak ñoom ci lajnatu saqaafa boo am solo boobu nga xam ne liggéey bu rëy la ñuy def bon ñu ngi ci waajal bis bi ba léegi si xam naa waxtu bi li ci des bëriwul waaye bon bis bi buñ xëyee dañuy jàng alquran lan moo waral ci benn mu siiwee ci alquran ku tudd ci benn rek sa xel dem ci alquran xam naa sama way bu yàgg ne buñ tuddee ci benn rek sa xel dem ak ci alquran waaye buñ ubbee kaamil rek ñu ne ana waa ci benn ren dañoo dégg ne daayiratul mutahabbina fi laa ne see station jokk mbokk seen conférence bi dañ ko darajaalee ñi nga xam ne nii mooy sëriñ daar yi jàngee ci benn ba génn yore ay daara nekk fu nekk ci alam bi lan moo waral daraja boobu ak lan lay firnde ci bis bi incha allah waaw di santaat yàlla beneen yoon di wax ne eh, bis boobu nga xam ne mooy cubeen dëkku alxuraan ñu jël bis boobu noonu darajaale darajaale ko ñooñ alxuraan kon loolu dañuy wax ne nuurun xalal nuur nga xam ne suñ sëriñ bi di muy si Mawlaay si Abdou Malick day yëngatoom ak dalama guddeema bëccëg lépp alxuraan la mu nekk dëkk boo xam ne ci mbaaxu yàlla ak ngëneelam moom moo def cubbeen ak alxuraan ñoom ñaar ñu ànd boo ne cubbeen rek ne alxuraan wax ne nóorun xalal nuur xam ne suñ sëriñ bi di muy si Mawlaay si Abdou Malick mhm. ay yëngatoom ak dalam ko guddeem ak bëccëg lépp alxuraan la mhm. mu nekk dëkk boo xam ne si mbaaxu yàlla ak ngëneelam mhm. moom moo def cubbeen ak alxuraan ñoom ñaar ñu ànd boo ne cubbeen rek ne alxuraan loolu yàllaa ko def foo foo waxee cubbeen rek mu ne fa laa jàngee wala sama rakk fa la jàngee wala sama mag fa la jàngee loolu yàlla moo ko def te ku ne xam ne ne képp ku yàlla jox alxuraan jox Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mm-hmm. bi muy ñaan yàlla mm-hmm. ndax wali yàlla bu nekk yàlla dina ko teewal karaama dafa ñaan yàlla mu def mokkal téeréb yàlla bi mm-hmm. mu nekk karaamaam kon Baye Niass moom nga xam ne mooy borom faydu bi bokk na ci critères yi nga xamante ni moom lañ doon xamee ne kii mooy borom faydu bi ci boppam gis nga a Cheikh Mouhamadou Hafiz as-Shinqiti bi muy waye wane moom mooy borom faydu bi fekk booba قوم بني فرم فيد بنيوغ وغني حب أنني أنا الذي قد ظهر من الأولى أمرهم وقد اشتهر وفائدة التجار آخر السمان وفائق الرجال في علم القرآن من جابل نمان ماي واجنا خمني فين لسه كورير بموي من الإسارة سيبو سرجل من الطائف حب أنا ذلك من هذا أمره من الأولى أمره قد اشتهر مع أن بوك تجاني خمن سين بيرسيونا ثم تأتي فائدة على أصحابي من وفائق الرجال وفي التجان آخر الزمان ما في التجان بيها هن مولس التجان بيها هن فينش آخر الزمان هم كوك ميجي جامع لباي جست باي جست نيوبو وعليم تجير ما يوفى يقول رجال في علم القرآن ما يكين خمسة مرة ونجب تكم كم القرآن باي جست كوت دوم كيف لينجس كعالم بموجب كلمة بند لما تيجوا الرسالة باي جست نحن عندي إمامين الإمام الظاهر الكتاب والسنة سمي إمام نعمنا نار إمام سمي إمام كزاير القرآن ak sunu yëm ci almahamad wa imaami fi lbatin asiyaw tiyaani waaye daf ba mu waxee imaami fi imaami fi sahir alkitab wa sunna mu ne laa yujudu man wa afhamu minhu bi wërul xaala bi ba mu daj doo gis kenn koo xamante ni moo ma gën a xam alquran ak sunna moo moo ma leen gën a dégg afham la wax dégg kon kooku bu fekkee moom mooy ki nga xamante mooy suñu sëriñ bi Mawlana Cheikh Islam ñaan yàlla mu nekk karaama cubee nekk dëkk alquran kon xam nañ ne cubee xaritun min من qura مولانا cheikh الاسلام دك لا تي دك باي Baye Niass kon dëkk nga xamanteni li fa génne ci ay nit ño xamanteni ñu moko alquran lay kenn xamu nu mu ci xaalam te yàlla dogal ñafa génné timit mo am ay ño xam ñi ñu ngi tasaaroo ci xaalam bi samp ay daara ay internet fu ne ci xaalam bi di jàngale alquran te ku ne xamne ni alquran ba gis né non woon mboolem jëf yu bax yëpp gësam na ko waye gisuma lu gëna for jàng alquran te alquran joju mooy li xam ne mooy suñu dustuur ñun jullit ñi mm-hmm. nga xamante ni ñun ñëpp buñ delloon ci alquran di jëfee alquran di jëfee xatte alquran rek mm-hmm. su boobaa kon àdduna bi jàmm rek mu am jullit si jàmm rek am ndax bàyyi nee na mm-hmm. askan bi li baaxaloon njëlbeen gi rek mooy baaxal mujj kon li baaxaloon njëlbeen gi mooy dañoo jàppoon ci alquran di jëfee ndigal alquran di bàyyi tere li nga xam ne moom la alquran kon problème yëpp li ko indi mooy ñàkk jëfee alquran ñu ngi toll si jamono boo xam ne nit ñi toujours dañuy wax ne jamono bi néew jamono bi dafa naqari waaye jamono bi man damay wax ne dafa neex ndax jamono biñ toll nii ñun ñëpp kenn ku nekk toll nga foo xam ne wala yaa ngi dund loo xamante ni mosoo koo dund ci ay ndollal yoo xamante ni yàlla mu ngi la ko defal ci saay ak ci baax bàyyi ñëw dafa amoon benn aaya alquran bi mu koy jàngale mooy إيه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستعلفون في الارض كما استعلف الذين من قبل باي ني دافا واني اي بوب مسؤوليه لا بو خامني بو ري ري مون نك ورنا ني نين جولين ني ني يلو كو نك ني يلو كو بي جيت تي فولا وسبات اك تي دغر تي صح وصبر اك سي مون واخلاص اك سلال واي وثقه بالله العلي العظيم يقول يالا ميغا خامني مو ني دغل اي بوب يالا لوم واخ دينا لين كوتالال يين ميغا خامني يين گم يالا تاي جيب جيب يبار تي كاو سوف لا يسلم إليه كما صلى الله عليه وسلم لهم دينه ونستدعى لهم وليبدل من بعد قوم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك لا يفاسقون من هيك آية بوخن برين آية جرى بعد يسمين آية بنيون جلين نب مم لن يورون جل تكو سين كرام وآية نيون نياري problem لن يهم موي نياري غاك غاك يوخن مونيك سيني قر موي بوغ دنيا وكراهية الموت نياري موي سيني problem موي بوغ دندو ببار بان دي bëgg dund lañ bëgg def te ba pare bañ dee boo xoolee tey woote lislaam yi boo koy woote rek kenn ku nekk yaa ngi rasu naan nangam nangam lu nekk ñu koy wax waaye dañoo xamul ne am yàlla am àdduna mënut a nekk man na nekk sax ci ko ko yàlla jagleel te jaam yàlla yi dañoo xamul ne gis nga ñaaw-ñaaw yi ak bàkkaar yu bari yi yëpp bu yàlla doon li woon wërsëg ñu ñëpp ñu am wërsëg rek comme niñ ko bëggee kon su boobaa bàkkaar yi dafay gën a bëri kanaa mm-hmm. yàlla li mu def ngay ñàkk di am nii di am problème loolu mooy dëggal yàlla ak yàlla yàlla looloo tax mu nekk yàlla waaye ñun ñëpp ñu joxoon suñu càkkuteef ñu am ko ni ñu ko bëggee kenn kenn dootu toppati yàlla bàyyi gis nee na am na si jaam yàlla am wërsëg rek mooy mën a ñu topp yàlla waaye am na si ñoo xam ne ñàkk rek moo mën ñu topp yàlla képp bu ñu yàlla joxoon wërsëg wala wasat laa risqa li la ba xaw fi ñëpp bu ñu amoon liñ bëgg niñ ko bëggee rek ñu toppati yàlla sax moo tax nag li jaam yàlla yi nga xam ne ay jaam yàlla leen nag ñoom amuñ dara waaye luñ am dañ koy jox yàlla luñ ñàkk laaj ko yàlla waaye nag bugg sa saayir bi di dox comme ni mu waree ba pare ti tamit nga bugg koo am booleeg am yàlla loolu mënut a nekk moo tax ku bëgg jaamu yàlla mu amul dara yàlla rek la am lu mu ñàkk laaj ko yàlla lu mu am jox ko yàlla te nag nit yàlla yi ala kulli yàlla rek lañ xam waaye kenn du dem bàyyi leen lu nit yi am yàlla dina ko amal teg ko seen loxo yi li am solo rek mooy nga am bu wér ci yàlla yàlla bu wér topp yàlla bu wér ala kulli xaal li nga war a jot yëpp di ko am kon loolu subbeen googu nga laaj nga xamante ni dëkk alxuraan la mhm. ñu jël ñi nga xam ne ñoo ko génnee di jàngalekat alxuraan tuddee leen bis boobu ku nga xam ne kon bisab bi mhm. ala kulli haal mhm. képp ku fa ñëw ala kulli haal di nga gis kéemtaan te kéemtaan boobu dëgg-dëgg mooy kéemtaan alxuraan karim kon loolu lañ doon tontu ci laaj barakallahu fiik kon daal ñoom daal ah, nu mu tuddati ay xadir lañ wala ay aalim lañ ndax dégg nañu hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu waxee naan xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ki gën si nit ñi daal mooy ñi jàng alquran pare di ko jàngale te ñu gis ne jamono fi mu toll jàngkati alquran yi teguñu leen seen barab maanaam koo gis muy tuddee bis ki muy wut rek mooy ab bailleur de fonds ab commerçant wala politicien waaw ah, yéen nan ngeen darajaalee borom jàngkati alquran ñi nga xam ne ni ñoo gën si li yàlla bind mm-hmm. leen ko loolu am na lu muy firnde lu rëy rëy mm-hmm. moo dina ñoom seen daraja kawe na te ñu màgg mm-hmm. leen seen boroom te fàttewuñ leen dëkk alquran moo leen delloo jukkal ba léegi ñu ngi ci waajal la 18 mars benn destination la muy cubee ñu ànd seek cubb mu bàyyi cubb mu bàyyi TV te ñi nga xam ne seeg Mohamed Thioub mu ñuy defal émission boo xam ne nii spécial waajal conférence de Diourbel le 18 mars 2023 incha allah yàlla nañ ko fekkee jàmm suñu borom defal ñu ci tawfiq bon daal bis ba bis bu am am solo la ndax bis la boo xam ne ni alquran lañ koy waajalee waaye bu ñëwee ca bis ba alquran lañ koy ubbee ci soo gi waaye mu am ay waxtaan yoo xam ne nii Maodo yu fasante ko waaye demu ci benn di ko def buñ demee ba tisbaar ñu jël tisbaar ba pare ñu dalal ñi nga xam ne ni ñooy soññ si ñu tax ñu ngi leen di ziaraat bu baax gannaaw buñ ziare Mouhamadul Mahi ziare al imam al akbar ñu ngi ziare al imam oustaz Mouhamadul Bachir buñ ko ziare ziare borom dëkk ziar nañ mboolem waa ci benn di ziare mboolem dëkk yi nga xam ne nii ñoo wër ci benn waaye di ziare doomu ci benn fu mën a nekk ci aalam bi waaye di ziare jullit fu mën a nekk rek ñu ngi ci émission bi di waajal conférence de Diourbel le 18 mars 18 mars 2023 ñu ngi ànd ci waxtaan bi suñu as président waaye bi ci ànd ci sikkar bi si Mor Anta ak mbokk ci àndal ci caméra bi Mouhamed Thioub bon as leeral nga ñu li nga xam ne nii moo waral jotaay bi ak conférence bi ban bis la ak kañ la loolu leeral nañu Cheikh Mouhamadul Munhamina mooy ñëw ànd ak Cheikh Mouhamadul Abdul Malik ibnu Cheikh Ibrahima ñas ànd ak daal maanaam dogetu resu mbir na yëpp ñooy ñëw ñooy faral di ñëw benn destination la mooy Cubeen ku xam mun am mi nag xam ko ci xam-xam nga xam ne moom dundam yépp ci conférence la xam ne bu la waxtaanelee ci benn mawdon rek boo pare yow moom mawdon boobu moom day lees sa bopp nañ mm-hmm. ndax ku ñàkk caaxaan la ku ñàkk caaxaan nag buy waxtaan moom mm-hmm. dëgg-dëgg lu leer rek la jox muy hadis mm-hmm. yu wér waaye alquran yoo xam ne nii si nekk day am référence ak delluwaay ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di ziare jokk mbokk fu ñu mën a nekk léegi question bi ñuy laaj as moo di ne lan lay ban message lay lancé mu jëmale ci mboolem doomu ci benn ñu gën a mën a jàpp bi nga xam ne mooy association jokk mbokk ak importance bi nga xam ne nii moom la am pour Diourbel parce que gis nañ ne depuis mille huit cent quatre vingt sept ba léegi Diourbel la fa tabax yëpp ay doomu Diourbel ñoo ko def suñu maam yi dañoo yoroon ay kaye saay bu weer dee ñu am ay représentant ci dëkk bi ku mel ni Cheikh Tam Faye yàlla na ko ku mel ni Baye Baye Taïba jey foo xam-xamam ko ci wër ci dëkk bi kër bu nekk mu dugg fa moo tam fay yàlla neen yàlla yërëm taxal na aljana dafa mel ni bon formule boobu moom lañ sensé méngale ko jamono mu nekk association jokk mbokk nga xam ne sept weer bu dee rek doomu ci benn fu mu nekk rek xelam dana wax ne tey de mooy li nga xam ne nii mooy réunion bi wax war naa faa teew te war naa am lu ma fa teewal ban message ngay jox doomu ci benn yi pour ñu gën a mën a jàpp station jokk mbokk parce que lu am ni jumaa yi ci benn ku ko tabax lu em ni armeel yi ci benn ku ko tabax lu em ni poste santé la ci benn li ko tabax lu em ni kër Cheikh Abdoul Malik li ko tabax waaye li nga xam ne nii mooy yeneen yi nga xam ne nii moom lañuy def ci biir mooy dimbale way feebar yi dimbale way néew doole yi dimbalante seen biir dëgg-dëgg foo ko natt ci importance rek weesu na ko léegi nag ban message la ñuy lancé boo xam ne ni mooy jëm ci mboolem doomi Cubéen yi mm-hmm. waaye ñaan la tamit suñu kilifa yi nga xam ne ni mooy suñuy bàyyi yi mm-hmm. nga xam ne dañoo dégg jamono lool mm-hmm. ndax xam nañ fi jamono toll ak lim laaj moo tax ñu jiital ñu rek ne acca ndax ñoom ba ñu yaree ba jàngal ñu pare xam nañ ne yoon bi nga xam ne moom ñu rëddal duñ ko wàcc loolu moo tax ñu nangu ñu jiital jiital boobu nag ñu jiital ñu nag naka la ñuy mën a gën a góorgóorloo ba téye bu ngi puso yi bu réeree suñu loxo nga xam ne benn tolof tolof benn yàqu-yàqu du ci am te doomu ci benn fu mu nekk rek dana nekk ambassadeur ul islam dana nekk ambassadeur alquran waaye dana nekk ambassadeur ul fayda waaw di sant yàlla di wax ne rek fiñ toll moom toll na si jamono boo xam ne ñun ñëpp war nañoo soññante pour ñu gën a jàppaat mu gën a dëgër hmm. ndax dafa mel ni yokkat mi ngi bugg a am hmm. dafa mel ni tayal mi ngi bugg am hmm. dafa mel ni dellu ginnaaw mi ngi bugg am te mi ngi feeñ ci lu bëri nag ci jamono bi ñu toll nii nga xam ne <clears throat> mbir mi toll na foo xamante ni ñëpp a ngi waxtaanee ci benn ngi leen di tagg ñëpp ngi leen di naw kon nag buñ tollee foofu dëgg-dëgg buñ naawoo rek ala kulli xaal mbir mi yëpp mën naa delluwaat ginnaaw te loolu yàlla na ci yàlla musal kon nag loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mboolem doomu ci benn ñu xam ne àdduna doomu aadama yàlla daf ko bind ci coono àdduna bi laa raxata fi dunia naf li nga xamante ne dafa yàgg naa ko ma dafa nekk mbir moo xam ne képp ku bëgg a def lu baax rek ala kulli xaal bunt la boo xam yàlla moo ñu ko ubbi mu nekk loo xam ne li yëndu bi sallallahu alayhi wa sallam aljamaatu rahma mbooloo mooy yërmande mm-hmm. maanaam tey nga xool cubbeen niñ toll am nañ lu gën a jafe muy mbooloo mm-hmm. mbooloo yàlla dogal mu nekk ñu nekk benn mm-hmm. seen kàddu nekk benn seen jëf bi nekk loolu dëkk yi wër cubbe yëpp ñu ngi ko bëgg te mënuñ ko am yàlla may ñi xéewal nag bu la ko yàlla joxalee li tax xéewal gi mën a sax buum bi nga koy yeewee mooy sant yàlla mooy ni ngay sant yàlla nag mooy lan moy li la yàlla wërsëgal ala wala li nga xamanteni ci la mbolo mi nekk nga fexe ba ànd ak ñoom wa ànd bo xamanteni ni ànd bu rafet lay doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam neena nee ñaari nit fu andé rek ki yàlla gëna bëgg moy ki gëna a andé euh te buntu développement dafa nek ci bolo joxante lox loolu yonent sallallahu alayhi wasallam sallam ko jàngale si benn xadis dafa wax ne ma min sanbin aqdaru an yu'ajjal allah taala li sahibi al huquba fi dunya ma ma yutaqiruhu fi al-akhirati من قيد حتى الرحيم والكسب والخيانة ينتو صلى الله عليه وسلم مني أم بنت بكار بو قمن موغن يل كور يالا مغل تي جان تي أدنى عندك نك يالا مغل مغل تي أدنى دمي كور دين تير مغل مغل ميت على آخرة ينو غلول موي لك مني موي دق مبو أك فن أك ورج نيتي ينتو صلى الله عليه وسلم نينا موي غنى دانزري nga xamne da fay waral mbugulam aduna ak mbugulam alakhirah mu metti met way yunus lim tejé hadith dafa mu ne hatta inna ahlal bayt hatta inna ahlal bayt la yakununa fajratan mu ne fa tanmu an amwaluhum wa yuksiru hadaduhum isa tawasalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne hatta inna ahlal bayt am na benn ñooñ boo xamante ba nga xamante ni am na ñoo xam ne ñooñ ab néeg lañ wala ñooñ ab dëkk lañ la yàkkoona danañ nekk fajaratan nekk benn say benn say ñoom ñu joxante loxo daal nekk benn mu ne loolu suñ ko defee yonent bi dafay jàngale développement développement la doon jàngale bu ñu ko bëggee def naka lay demee mu ne fa tam moo am waaloo bu ñu defee loolu rek seen alal ji dafay bëri te wuy ko sur adadum su boobaa ñoom seen mbooloot tamit dafay gën a yokk seen lim dafay gën a yokk waaye nag loolu mu ne lu ko lan mooy tax mu mën a mooy isaa tawaasaloo mooy buñ jokkoo buñ jokkowante moo tax suñu asal bi ñu tuddee ko jokk mbokk te yonent bi nee na dagg mbokk ak fen ak wuruj yi mooy waral mbugal àdduna ak mbugal alaxira mm-hmm. développement nag li indi mooy ab dëkk ñu nekk say fajaratan ñu joxante loxo bu ñu ko defee rek seen alal dafa yokk te ñun loolu dund nañ ko xam nañ ko ku ne xam na ne bi ñu joxantee loxo nii def nañ ci loo xamante nii bu buñ joxatoo doon loxo loolu du am kon nag comme que loolu taxaw na ba pare buñ tayal buñ yokkat buñ aleer buñ ragal ragal dafa bokk ci weddi yàlla yam yàlla bu ragal ñemeel ndax yàlla ngay jëfal yàlla moo lay fay kon nañ nekk benn nañ joxante loxo te bu kenn ragal te bu la kenn ragal loo bul ragal te bu la kenn ragal loo ndax li ngay def lu baax la fa isa farata fan sa bàyyi bi mu koy ba ko ustaz bram Diop bàyyi mo ne fa isa farata fi l ibadat fansab fi l adat fa isa farata fi l fi ba mu jeex fa isa fa isa ba mu jeex loolu foo soo paree ci lii rek demal ci li xam nga ñi ngi deugmal ben ben bis bo xamanteni way waykat dafa wone kunu jamian ya bunayya isa taraqat bun wala tatafarraqu ahada kone tabarri tabari maaw isa tamahna way wo isa ftarahna takasar ahaba loolu mag ñi yàgg nañ ko nettali ben borom xam-xam bu tudde tuddee bu sufra mo moo bindo dafa dem bay genn aduna borom xam-xam bu mag la mak mag kilifa la woon mu wo ay dom yeb ñu dajje mu jox leen kenn ku nek ben bantu bale nga jël dam ku mu jox rek nga dam mu jëlat benen bantu bu dëgër kenn ku nek mu jox la nga damm mu maa mu jël bant yi ñu dammoon noonu mu boolante ko mm-hmm. kenn ku nekk mu jox la nga damm mm-hmm. affaire mënul damm mm-hmm. mu ne leen xàkk saa nii la gis nga bu ngeen la ko nekk benn xalaa kulli xaal Mhm. mooy li waykat boo xam ne takbar imaa wa isab tamax na mhm. bant yi bi ñu leen boolantee kenn mënu leen a damm mhm. waaye wa isab tarax na bi ñu tànqali ko xee rek a kasarat axaaba bi ñu demee ci école bi di jàng école arabe yi nga xam ne dañuy jàng tilaawa saa su nekk rek dañ lay jox benn dars bu bees loo xam ne daf lay yee gis nga bi ñuy jàngalee yëkk ñetti yëkk yi nekkoon ci àll bi bu weex bi ak bu ñuul bi ak bu xonq bi ñoom bi ñu àndee benn rab benn gaynde wala benn bukki ñëmul leen a song waaye bi gaynde fexee ba wéet ak bi rek taxali ko moromam kay rek ala kulli xaal keroog la leen lekk ñoom ñett ñëpp kon mbooloo nañ fexe ba ñu ñëpp ñu ànd nekk benn di xàccandoor di dóorandoor waaye li nga xamante ni moom lañ woote woote ñu dëggal ko mooy mu faxab na fi baax mooy ñu nekk ñoo xamante ni dañoo bëggante ngir yàlla ndax Baay Ñas nee na ah, ah, al ictilaaf sirul islam ictilaaf mooy miinante mooy tàppante mooy jegewante loolu mooy mbootu lislaam mhm. looloo waral julli juróom ñuy dajee si jàkka yi ñu ñëpp dajee day tax lislaam ñun ñëpp dañuy gën a bëggante mhm. looloo waral àjjuma bu jotee ñu tëj jàkka yi dem si jumaa yi mhm. looloo waral année bu nekk yàlla dogal xaj màkka ñun ñëpp ñu dagg ay maan yi dem ba màkka dajee fa loolu mooy mbootu lislaam lislaam loolu mooy tax mu gën a màgg mooy tax mu gën a dëgër moo tax suñu noonu gën ñoo ragal moo doon xalaat ku li xaal bu may laasé mooy doomu ci fu mën a nekk ci xaalam bi fu mën a nekk ci xaalam boo nag boo ci bokkee da ngay teew ci mbooloo bu rii ñëw jotee nga ñëw bu wax jotee nga wax bu jëf jotee nga jëf ndax mbooloo ñett moo ko composé ku am ak ku xam ak ku man kenn amul ngànt pour bañ a jëf kon ku jëful rek dañuy jàpp ne yow da ngaa ci mbooloo mi wala da ngaa gëmul mbooloo mi wala da ngaa bëgg mbir mi dellu ginnaaw moo tax nag ñun nañ képp ku bokk ci mbooloo amoo ngànt pour ba a jëf soo mu amul xaalis boo joxee am ga doole soo amul doole am nga am nga am nga xam-xam wala am nga xel am nga xelaat hmm. ku nekk rek mën ngaa jëf moo tax nag bis yii képp ku si jëfuti bis dina ñëw di nga rëccu Ibou hmm. Diouf nee na woon jug leen wuti njëriñ ci li xew tey hmm. balaa way li démb ngeen xëy di rëccu naan coy njëriñ fi nga mën a wutee mooy sa jamono bi sayri sama ni ka sir sa doxu jamono ji si nga mën a dox li passé passé na lu ñëw gu ñëw gu tay moo teew tey moo fi nekk kon ñun ñëpp nañ fexe jëf ci tey te kenn jëful kenn ku nekk sa bopp ngay kon loolu laay message bi nga xam ne moom laay lancé mboolem doomu ci wéen fu ñu wax ne asos mi nga am yokkute te lii tax muy yokku mooy ñun ñëpp ñuy joxante nekk benn soppante ngir yàlla tey xelalante ngir yàlla bunte asos bi tëjuwu benn képp ko am sa xalaat ko wax bu réunion amee képp ko am loo bëgg waxtaane boo ñëwee ñu waxtaan ko lu mbooloo mi dëpp dëppoo rek alaa kulli haal loolu def kon message boobu lay lancé di woo mboolem doomu cubeen yi nag di leen wax ne dafa mel ne organisation programme ren bii na dafa mel ni ñu bëri dañoo fasul yéene dem ci benn waaye dina wax ne loolu lu ko gën a xaraam ci kaw suuf xam nga lu gën a xaraam loolu ci kaw suuf ñun suñu Sénégal gi si nga am nañ suñu mbokk yoo xamante ne ñu ngi fi suñu mbokk ci lislaam diina bi am na lu ñuy def loolu ñu war nañ koo roy mooy gis nga am na programme yu fi am dëkk bi seetloo la ñoom ñëppay def ñëppay def kenn du des yéen xam ngeen si dara yéen commerçant yi buñ ne kasu sora jab ñëppay dem buñ ne poroxaan ñëppay dem buñ ne leneen leneen ñëppay dem pourquoi ñun mënuñoo def loolu boo ba pare wax ne ni ñun dañoo gëm ñun ay taalibe de loolu mënut a nekk buñ ne cubbeen sa dëkk moo woote dafa la war a jaral nga tëj sa place ñaari fan ñetti fan sa dëkk moo woote bu fekkee nag loolu mënoo koo def dañu xam ne yow sa gëm gi dëgëru kon loolu nañ ko bàyyi xel ñun xam ne benn programme lañ am ci ci bis bi mooy suñu dëkk mooy suñu cubbeen képp ko xam da ngay woote ne yow cubbeen nga bëgg nag moom ngay nooyee moom ngay pugare woo cubbeen woote gisuñu la defoo ci sa xalal demoo ci teewoo ci ala kulli xaal dañu xam ne yow woote li ngay woote du dëgg ndax tuxsal ilaha wa anta tusxiru xubbahu yaa ngi mooy yàlla ba nga da nga bëgg yàlla waa ji nee na hada la xamri fi lqiyaasi badi loolu maa ngi gën ci sama dund bi ne buñ ko doon xiyaas dañuy wax ne lii ay ay ay fent la rek ndax inna al muhibba li ma fi mucc nit ki bu fekkee dafa am koo bëgg ki nga bëgg da nga koy toog ala kulli xaal jazakallahu xayran bon daal defe naa mbir yi leer na te buñ ko tënkee rek mooy waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu ak beneen aaya bi nga xam ne nii muy wax naan wala tanaasamu fa tafsulu wa tashaba rixukum aljamaatu rahma wal firqatu xisab loolu rek lay firi bon mbooloom ci benn ñu noonu destination bi benn la di sud mars ci ci dafa am ay sirru yu bari yu nekk ci am am ay événement suñu borom bi nga xam ne ni moo bind doomu aadama te gën koo xam boo gisee mu defe leen ay événement événement bu mel ni tabaski dafa leen événement bu mel ni korite mm-hmm. waaye bi ci gën a gàtt te semaine bu jot ñu def ko muy événement aju bu bàyyi woon doomu aadama ci benn melokaan rek du yàgg ci àddina bu dundee ñaari at wala fukki at sax génn fii ndax da koy sàppi beneen sirru bi ci nekk mooy dajee bi nga xam ne nii moo nekk ci ay jaamu yàlla yu dajee ngir yàlla mm-hmm. soppante ngir yàlla mm-hmm. waaye di waxtaan ngir yàlla ndax tabaadulul afkaar ya fay am waaye dajee bañ fay def day tax seen bakkaar yi ruus day tax ñu gën a bëgg seen dëkk day tax ñu gën a xam seen bopp waaye day tax ñu gën a fonk seen diine waaye day tax ku nekk ku nar na fàq wala nga sànku sax day tax nga dëpp maanaam rencontre daal dafa am lu am solo lu am solo lu ci nekk na boo xam ne ne c'est un an lañ koy def ci Cubeen ndax nation bu nekk mi ngi am bisam ñun Cubeen nag am nañ suñu bis mooy le 18 mars ban na ko doomu Cubeen yépp waajal ci maanan wa ma'nawiyan wa jismin incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu am jàmm bu ko defee rek di wax ne bis boobu ki ko dara jaale wala ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee waaw muy politicien leader bu mag di jaam yàlla bu baax mm-hmm. di may wax ne moom ci a cubeen la bokk mm-hmm. ndax as membre la ci cubeen ndax dafa ñëw fekk ñu tabax jumaa mu participer si mm-hmm. wane na moom dafa bëgg cubeen di puugarewu cubeen ñu jàpp ne ko kenn la ci doomu cubeen yi muy Seydou Ousmane Noël Dieng nga xam ne tey bis bi moom lañ ko tuddee ñu jëm ci yëpp nañ bàyyi xel ne délégation bu rëy rëy rëy rëy rëy alaa kulli haal ñoo nar foofu kon ñu war a dalal ay gan loolu nañ ko préparé man wala yukrim day foofu ñu ñëpp nañ préparé gan ñi mm-hmm. nañ génn suñu néeg yi nañ wàcc suñu lal yi mm-hmm. nañ fexe ba lekk yi na doy naan yi na doy lépp jaar yoon loolu moom ñu ngi koy lancé ñëpp mm-hmm. beneen bi ci des tamit mooy poste de santé bi nga xam ne ñu ngi ko doon tabax ala kulli xaal ci bis boobu lañ ko fas yéene inauguré insha allahu taala kon loolu tamit ñëpp bàyyi si xel xam ne lii ay xéwal la ay ndollal la ay ngëneel la yoo xam ne dëgg-dëgg yàlla moo ko jëlal ci benn te dara taxul li yëpp mën a am mooy joxante loxo gi rek ak bëggante gi ak soppante ngir yàlla kon loolu lañ fàtte woon a jàllale barakallahu fii kon daal loolu mooy wane ne bu baax daal ci bi lañ kenn la ciy sànni faqad kana andan nas sarfan wa maariba وقتل ما أولاءنا والمكاسبا لمن وفدوا من تل الجزيرة بينما وفدتم من أغزى لقيتم متاهبا الله لمن وفدوا من تل الجزيرة بينما وعدتم من أقصى لقيتم متاحبا الله وإن سالوا قد زرتم القرم عاقبا الله وهل أتعب الزوار منه مواحبا الله فقد كان عند الناس شرخا ومعربا تل ما أولى غنى والمكاسبا لمن وفدوا من تلك الجزيرة بينما وفدتم من الأقصى لقيتم متاحبا وقد جوتم الأجواء ليلا وفلككم به شابك الملاح تلك صحائبا أقول ملا شرا الكلام وحتى ملا أكياسنا والحقائب فيعتز للمعروف يرتاح للندى ويعطي هتاء لا يخاف نواحبا وذا أحمد دعا كجما كذا حرما مصفاها حاذ المواهب لذاك تراني قال عكبت ببابه فمنه ينال العالم يبغون المطالب لنا قصر كسرى قد ذكرت محمدا فأرقني سكرى ببغداد آئبا سوى في سلمان وقادره مذ وقد مسقوا أعلامه الكتائبا لدى كربل زرت الهزينة والزلا لوالده الأرض من الله طالبا علي أبي سبتين ليس محمد بصارمه السمسام أنحي مزائبا وإبريقي لا ترتدي خير أحمد رسول هدى النائل هو الأقارب إلى ذن قال المنجميل جنابه به أنصب الدحر القول مقالبا فلم تتجه إلا وحده كفاك ذنائي دعوة ومطالبا لم تتجر إلا إلى الله وعده كفاك زنائي دعوة ومتالبا فلم تتجي إلا إلى الله وعده كفاك زنائي دعوة ومتالبا والحمد لله الله إلى بلدي والحمد لله وحده إلى بلدي والحمد لله وحده وصل عليك الله من جاء عاقبا إلى بلدي والحمد لله وحده وصل عليك الله من جاء عاقبا وإن سالوا قد زودتم القرم عاقبا وهل أتهب السوار منه مواهبا فقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد أولا والآخنا والمكاذبا وقد أولا والآخنا والمكاذبا أو يستبين وصلاة على إمام بيان مالي وصبي آل قرون أصلك عجب صريعة نحو الحقيقة المظلوم والأمين وصلاة على إمام بيان ثلاث مآل غصب آل قبول نقتدي عند عمده ثم نمدي نزاد حقا وجال المتين وصلاة على إمام البرايا مآل غصب آل قبول ثم تذكر وعده وهو وعدنا من كريم وهو جليل المهين وصلاة على إمام المرايا مالي وصبي آل قبولي ونقف إلى النور الجيم أبوب القرآن حقا يقول الصلاة على إمام المرايا مالي وصبي أهل قبولي حيث كنا له سجدنا وإنا قد هدنا سوى الإله يهينا وصلاة على إمام من برايا المآل وصابئ لقلوب حيث كنا جنة وإنا قد عبدنا سوى الإله يهين بعد قلب المحب لا وسراتنا مستقيم تراه والمكين وسرات الهيبة بالبرايا دماني وصبيها القرون رسول الله من قومنا أدبه بل كل منه نهينا وسرات على إيمان بالبرايا دماني